asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 25 octobre 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey dañoo xëy ñëw wala sunu lamb bi ñu koy njëkkee moom daal yëglikaay ba tey daf ñoo xëy wan docteur Alioune Sarr ba nga xam ne nag moo jiite lamb ji muy rot bi kam takkay na tam di wax bay joxoñ waaye nag am na koo xam ne day mooy wax ak moom muy Abdou Guèye di magi Tafa Guèye di entraîneur nekk fa nga xam ne nii mooy cekri face Abdou Guèye daal la mu xëy xamle nee na CNC bii day ñu ne ko loo ci wax mu ne li ma ci wax lenn dong la CNG ñoom ñoo fere na làmb ji làmb ji bu taxawee daal dematul Abdou Gueye na du kenn ku dul waa CNG bi nga xam ne ñoo ko jiite déet Abdou Abdou ne maa wax loolu loolu mooy li nga xam ne nii moom moo am nee na li nga xam ne nii daal mooy làmb ji moom ak taxawam jiiñu ko ñenn ñu jul ña nga xam ne ñoom la ñu wax ne ñoom ñoo jiite li nga xam ne mooy CNC bi Abdou Gueye ñu ne ko déet Abdou ne waa parce que li nga xam ne nii moom war a am ne na promoteur itam ci seen wàllum ay charges CNC da leen ko war a wàññil dimbali leen jàpp leen jàppale leen ndax nag ñoom ñooy bayru làmb ji nit ki nag buy góorgóorlu Abdou ne des ko war a jàppale waaye au lieu ñu di ko xeex loolu ba tey mooy waxi Abdou Gueye ne na tamit CNC lenn loo xam ni war nañ koo def ne na pourquoi xaalis bi ñu dëgg ci mbër yi la rawatina it avec frappe bi ñu jëm ci benn ambulance boo xam ne médicalisé lay doon ngir gën a yokk seen seen bopp gën a yokk seenub liggéey waaye nee dara ñoom daal li leen neex daal la jàpp ne moom la ñu fi nekke ba tey Abdou Gueye moom mooy wax dana fi mu nekk nii tamit mbirum roi des arènes moom daa jàpp ne waras na koo gën a joxub cër gën koo valoriser ba nga xam ne daal ku ko nekk moom di nga yëg bu baax a baax ne yow sa roi gi am na lu mu la jural waaye mbirum roi des booba tamit jàpp na ne day Modou Lo ko doon amul kenn ku ko ku gën a mérité ci làmb ji xanaa sax buñ koy xool xanaa kon Balla Gaye sax waaye nee na du Yékini keneen ku ma mën a doon koo xam ne daal gën ngaa mérito Modou Lo dégg roi des arènes mu mel ni ki daal Abdou Gueye tey moo xëy ngardaaju yëglekaay bi nga xam ne moo di sunu làmb wax fa la ko neex wala boog la mu yaakaar ne moo am jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite làmb ji di CNC waaye dañ fay dañuy continuer dem ca record record nag mbër ma ñu fay fekk mbërëm Abdou Gueye la wala muy mbërëm écrit fas muy Forza Forza moom écrit ba mu bokk muy Fass lay waxal ci ñu xoolaat seen taxawaay ak doxalin bi waaye tamit moom na na day am na luy nelaw ci moom loo xam ne ni day moom nag la bëgg a yee fi mu nekk nii moom Forza ndax jàpp na ne loolu yee ko dafa jot rëg-rëg moom Forza ne na adversaire la de ci moom moom jàpp na ne daal adversaire la boo xam ne ni daal bu wóor a wóor la ci moom mel ni ki moom forsa tamit xëy na ñëw wax lu mel ni ki noonu ci yëglekaay bi nga xam ne moo di record waaye ba tey rek dañuy dem fi nga xam ne ni moom moo di ah ba tay ca sunu làmb lañuy ñuy dellu lañ fay delloo nag mooy Modou Lo ak Ama de moo mel ni ki nag yëglikaay bi ne fi mu nekk nii boo bëggee dégg dëgg gaa yaa ngay dox doxu ndew ruudu mu yi daal ñu ngi koy def njëfi ndew ruudu di jaar ca suuf wàllum suuf mane di dem kër Modou Lo di fa yónnee di ko dagaan dagaan ka nag lenn la digganteem ak Ama Baldé ñu neñ loolu kan kan la yëglikaay bi na kii nga xam ne nii moo di ko Nicolaï ak Gaston Mbengue daal ñoom ñooy dox doxinu ndaw ruudu boobu fi mu nekk nii daal moo di moom bu doon jànq buy jaawi la dañ naan jar na bu baax a baax ndax nag ñi ko bëgg fi mu nekk nii bëri na promoteur daal ñu ngay yaale këram di ko proposé Ama Baldé bëgg digganteem ak moom waaye am na ñeneen beneen promoteur boo xam ne ma itam am na ku mu yónni de di ko yaale loo wala di ko doxloo doxal noonu ndew ruudu muy boob ki nga xam ne mooy gos ki nga xam ne nii moom moo di Max Mbargane Max nag ne nañ fañ ko yónni moom wala daal fañ ko dugal ngir mu di fa dox muy diggante Balla Gaye ak booy Niang mu mel ni ki daal waa record ñoo ñu xamal ne moom itam day ñu ngi ko yónni foofa ca diggante ba mu fay dox xam naa kon combat la ñu koy doxloo komba moom ku koy wër ba yegg si ci bii di nga xam ne combat dëgg-dëgg taxaw na ñu jële ko ca Leewtoo TV ak fa nga xam ne mooy ca sunu lamb Leewtoo point net ak Ligue TV ak wasaare ka fa jaar nag mooy jamaïcain jamaïcain jamaïcain mi nga xam ne nag fi mu nekk nii day roi de arènes ba ca Gambie na mu ko doon di mbër jam ne na noonu la fa fas yéene nekk roi des arènes fa nga xam ne nii mooy ca Gambie yaa ci wàllum promoteur ginnaaw ba mu fa yóbboo nag ki nga xam ne nii mooy xoyan tànn ak bàyyi ma ñoon jam dem fa toj signature contrat fas yéene tëgg lam ca décembre ñëw na nag Sénégal léegi bu mu fa ñëwee nag baa bu mu andi moo rëy diggante Bébé Saloum mi ngeen xam ba école Jimbori ak ka nga xam ne nii moom moo di Franc ba nekk ca parcelle mbooloo jamaykee daal loolu la ñu andil mu mel ni que nag fi mu nekk nii moom boo bëggee dëgg-dëgg ci wàllum lamb jam moom international la ci ci wàllum promoteur wala mu ngi koy internationalisé ndax Gambie Sénégal lay def mu mel ni que kon moom mu nga bëgg a tas lamb gën koo yaatal kon daal loolu mooy li am Franc Bébé Saloum Bébé Saloum moom ñuy wax nag écrim ba moom daa mel ni daanu jaaj la def muy école de lutte jimboor yi école ba daal boo bëggee dëgg-dëgg neuf combats la def trois victoires six défaites seeni mbir daal dox moom defu ko ak i tànk daanu ba yegg ca lool Bébé gisee su ko ci làmb ya mu bëri ki nga xam ne nii mooy rës Modou Baye Fall moustique ñoom daal some la ñu def bëriwuñu ci saison bi nga xam moo jeex Mbaye Dieye Faye moom ak ki nga xam ne mooy sa tabuwaalo ñoom boo xoolee sax ñoo assuré écurie ba waaye ñi ca des moom seeni mbir moom takk rip suuf la def yëglikaay bee xëy ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu waaye leneen loo xam ne tamit dem leen wala boog dañ koy fekk fii nga xam ne nii moom moo di ca Leewtoo point net mooy nag làmb ji àndul ak dóor muy lutte simple bi Jax nag fi mu nekk ni ginnaaw ba mu nee day tëb fa nga xam ne mooy ca gaal ga dimanche léegi nag la leer ba leer te dara jara jàpp mooy Jax nag léegi arène nationale lay tëggi kon mu noora noonu ku jëkk koo xam ne nii mooy tëgg arène nationale lutte simple loolu Leewtoo point net moo ñu ko xamal mu mel ni kon mise ba un million cinq cent la waxoon léegi nag Jax ne na deux millions lañ koy def ba tey mu ngi ca Leewtoo ki kon mbër yi képp ku bëgg renouveler licence tey àjjuma boo nga renouveler ba suba ci samedi ji daal ñun ñuy xamal ne ku fa demit da nga renouveler kon daal mel ni ki Jax moom ah moo nar a ubbi nag ngir lan làmb ji kon jàppale ne saison ba moom day démarrer dimanche ka koy démarrer mooy Jax borom Jax borom diction deux millions teg fa nga xam ne mooy ca Iba Mar Diop wala boog ca arène nationale fa la làmb jay amee dimanche kon faal waajal na ñëpp waaj ñu dem ci jàmm fekke ko ci jàmm que le meilleur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 point net te nag sunu lamb dafa xëy euh, dalal ki nga xam ne mooy Abdou Gueye Abdou Gueye nag bokk ci staff écurie Fass moom nag dafa xëy comme ni ma ko tàmbalee di defee rek di attaqué CNG na CNG daal nekk fu lu euh, dafay freiné lamb maanaam day taxawal lamb te tamit leen rek moo leen intéressé mooy xaalis xaalis rek moo leen intéressé ñoom waa CNG. Abdou daal tey daa xëy ngar daajoo yëg likaay bi wax ay soxlaam li mu yaakaar ni loolu la CNG seen que ni ñoom ñoo tee lamb ji dem waaw loolu nag xalaatam la parce que tamit mën naa ne. kuy sa mag Mbaye Guèye kuy sa mag kuy sa rakk Tafa Guèye kon si làmb la bokk ba pare mu nekk entraîneur ci écurie Fass di former ay kon yaakaar naa su ci waxee am na droit wax ci waaye nag quant à moom mu téye làmb ji wala moo ko freiné loolu gis-gisam la yaa dégg parce que CNG ak lu mën a xew rek am na lu ñu liggéey xëy na nag liggéey ba mën lépp mënul parfait à 100 pour cent ci suma xalaat nit ki bu ñu la dénkee liggéey da nga maanaam amul lu ci normal est-ce que nañ leen fi bàyyi ay at ministre bu ñëw war a conduire leen du ma yaakaar loolu waxuma ne nag li ñuy liggéey dafa baax à 100 pour cent parce que loolu amul ci àddina pour man kon nag li am solo daal mooy lañ leen di critiquer wala lañ jàpp ne doxut wala war nañ ko gën a doxal nañu ci jéem wax ak ña nga xam ne moom lañ ci war a waxal mu ñu ko seq pour ñu xool affaire bi nu ñu koy doxale mu mën a mën a mu dox parce la ñun ñoo ko moom yaa ngi dégg lu ci mën a xew moom réewum Sénégal la moom ñoo ko bokk am na loolu nag waxtaane ko dafay am solo ak ñu ngi ko séqal bu ko defee ku nekk indi ci xalaatam ñu xool lay yoon ak la ñu jàpp ne ko defee mbir mu avancé dem ci kanam ñu def ko ngir mbir mu avancé waaye comme que ni tey ñoom xaalis kese kese moo leen fa bàyyi ah ba tey xalaatu Abdou Guèye la man nag loolu duma ko mën a wax parce que li tax mooy aw ci loo nga xam ne nii lu ma leer la wala ma gis loo xam ne nii dama gis ñu jël xaalis am na ne su ma ko gisul aw ci lu ma leer duma ci mën a xëy na moom mag a wax am na fu mu ko teg. Euh, Babacar journal bi tamit ginnaaw bu ñu jógee si Abdou Gueye ñu dem nag si combat bi nga xam ne mooy lëmbee fan yi muy combat bi nga euh, xam ne promoteur yi bëri nañ ko bëgg dox mooy combat royal bi nga xam ne moom la Luc Nicolas wala Gaston Mbengue nga bëgg si diggante Modou Lo ak beneen mbër nee ñu daal Luc Nicolas moom wane na boppam bu baax pour bëgg décrocher ki nga xam ne mooy Modou Lo combat mais nee ñu daal Gaston Mbengue dafa mel daf ko bëgg suufu si combat bi waaw maanaam mbirum ndew ruudu comme li ma ko waxee sànq léegi moom yaakaar naa ne wane woon na ni bëgg na combat Modou ak Ama Balde ba di ko dox yaa ngi dégg kay tey suñu xëyee gis na Gaston mu ngi koy suufu ngir bëgg ko jël ah xëy na loolu kon moom it daa bëgg combat ba loolu nag li muy wane mooy que ni mbër mi moom moo jar wala combat bi moo toll noonu muy diggante Modou ak Ama moo fi mu nekk nii képp kuy promoteur moom sa xel nekk na ci tëgg combat boobu waaye dañuy ñaan rek ku mu ci sa nga jël ko te ñoom ñi koy dox ñëpp muy lig wala muy Gaston ku ci nekk tey dama naan amatoo looy prouver si làmb parce que ku ci ne wane nga li nga waroon wane ci làmb dañ fi nekk nag xëy na kay ngir jéem a téye làmb ngir gën a mën a tax làmb ji gën a mën avancer pour yeneen promoteurs yi ñëw nekk seen ay relève gën a mën a teg ci aw yoon mais yaakaar naa daal lu ci mën a xew na ñu waxtaan ba déggoo rek pour que réeroo bañ seen diggante pour que ku ci combat bi nekk sa sens nga jël ko ku ci xam ne tamit yow la ñaari mbir yi nangul ngir bëreel la nga jël combat bi làmb nag yooyu des dana ciy faral di am mais na rafet daal. Babacar dem nag si bilan bi bilan bu nu tey waa écurie sunu lamb daal mooy écurie Jumboor ñoom nee nañu daal dafa mel ne àdduna mooy daan si kaw écurie ndax def nañu saison bi nu génn 3 victoires la am ak 6 défaites. waaw day wax dëgg yàlla moom du école de lutte Jumboor yi bu ñoom bébé Saloum du du du du du résultat bu baax moom waaw loolu nag xëy na staff ba yore ak mbër ak mbër yi seen wàllu bopp ku ci ne am nga ci part de responsabilité parce que dama naan am na loo xam ne su amee rek performance bu amee. pour man ñu ko seq la mais bu contre performance amee tamit pour man ñu ko seq la kon waa école Jimboor yi daal nañu gën a xoolaat seen bopp gën a liggéey pour saison prochaine ñu fexe résultat bi nga xam ne am nañ ko te baaxul ñu def la tout que résultat bi nga xam ne moom ci saison bi lañ jëm mu gën bii daal suñ jógee suñu lamb nañ dem si journal record si xalima Abou Nour ma tey nag dafa xëy nekk si combat bi nga xam ne nee nañu moom la ñuy euh, négocier diggante Balla Gaye ak ki nga xam ne mooy Boy Niang nee ñu nag Max Margar moom la ñuy teg loxo moom moom la ñuy jox lépp daal si wàllum négociation moom moo koy dox suñu diggante ñaari kaay yi moom nag bu ñu ko woowee dëggal ne ne am na promoteur woo xam ni contacté na ko pour muy waxanteeg ñaari camp yi nee ñu nag Balla Gaye moom du si ant nee ñu Aziz mooy doxal lépp loo xam ni euh, ak combat combat am la Balla euh, Babacar. waaw loolu mën na nekk suñu papa Max Mbargane yaakaar naa yónni ko ci mbër mu doxal la combat defe naa lool ku ko def sànniwoo sa xalaat te sànniwoo itam sa yónni yónni nga ko jara yónni ndax li tax mooy kilifa la ci Sénégal mais kilifa la ci làmb te defe naa ne ci doxalinam moo xam émission ya muy animé ak la muy def boo bu ca nekkee da ngay xam ne moom làmb la fi nekkal du par parloo kon yaakaar naa que ku woo wóolu ba yónni ko yàlla na yàlla def la mu ko yónni mu réussir ko kanta bu dee tamit ca Balla Gaye la côté comme Aziz ah loolu nit nit ki bu fekkente ne da nga ne mooy sa parrain mooy sa lépp ah kon yaakaar naa ku ñu négocier moom rek ko a yebal muy ca Aziz parce que olof ne ki moom boo ko joxee lépp rek jox ko lépp ñuy wax tamit combat boobu yaakaar naa ne combat ko dàq Balla Gaye Boy Niang ah promoteur bi koy dox yàlla na ko réussir mook Père Max Mbargane mu yónni mais combat bu neex a ngoongu Amin Babacar journal bi tamit record dal na ki nga xam ne moom mooy Forza Forza nag moom lu dafa ne ci journal bi ne léegi euh, dafa jot phase nekkaat ci kaw ci kaw maanaam euh, ci kaw arène bi parce que léegi ñu Fass moom ne mu ngi traversé ay moments yu difficile nee nag moom ak Reug combat bu neex lay doon nee na yaakaar na daal loolu combat euh, combat amateur yi la waxaat na tamit ci journal bi nee na que dirigeant yi écurie jot na léegi dañoo war a décider ne entraînement yi kan reprendre fee ci écurie waaw loolu mu wax de comme que écurie Fass dafa war a nekkaat si kaw làmb ji loolu moom ginnaaw bés waxee ba pare jëf koy wane jëf ja nag mbër ma am na ca lu ko ca war dirigeant ba am na lu ko ca war supporter ba am na lu ko ca war waaw loolu fi mu nekk nii yaakaar naa pour ñu nekkaat ci kaw ñoom fañ nekkoon il faut ñu liggéey waaw li may wax rek chaque jour la rek mu écrit bu mu ci mën a doon rek la yóbbu fa nga war a nekk ci niveau bu kawe moom liggéey lay doon ak joxante ciir ak ku ci ne na nga nangul sa morom la mu yore loolu dina tax nit ñi mën na avancer que dirigeant yi tamit di signer entraînement bi yaakaar naa loolu moom defe naa jot na tey ci écrit bu mu mën a doon sax bu dul sax face entraînement moom jot na parce que lamb ji ubbi na moo rëg-rëg ko waxee lamb ju neex la wax dëgg yàlla rëg-rëg forza na te lamb la te lu war a mën a nekk la tamit te taaxaar naa tam bu amee dina neex amateur yi suñ jógee record nag nañu dem si Leewtoo TV Leewtoo TV nag démb amoon na euh, si locaux Lutte TV benn euh, signature présentation diggante Franc seen manager yi noo fa nekkoon euh, Franc la ak ki nga xam ne mooy Bébé Saloum ki nga xam ni mooy jamaïcain promoteur jamaïcain moom moo ko taxawal wuli nag mi ngi fa woon nag am na ay kàddu yu neex yoo xam ni wax na ko fa daal Babacar. waa jam ñu koy nuyu ko ziar moom di suñu rakk di suñu lépp yaa ngi dégg. boole ñu si lépp lu muy def parce que promoteur la mais nag dañuy ba ñuy ànd boo Babacar yorul micro moom nekkul promoteur lu yàgg la yaa ngi dégg kon ñu ko ñaanal yàlla fi mu teg tànkam yàlla na ko réussir bu baax a baax ndaw la ndaw nag li ko ji nay jéem waaye buy jéem itam na ànd ak kilifteef te nangoo déglu soo ko defee yaakaar naa saw yoon mën na leer am na lu mu def Gàmbi ak la mu fay waaj a def muy diggante baam yoon xoyantaan tey moo di laat ñu Franc ak Bébé loolu di ko combat bu mag fii Sénégal yaa ngi dégg muy lamb ju nar a neex démb nag présentation bi nekkoon ca lokowu Lutte TV foofu tamit ñu nuyuwaat waa Lutte TV yëpp rawatina kilifa ga bës ak suñu rak suñu xarit Lamine Seck ak ñoom Mohamed mu nekkoon moment yoo xam ne daal démb neexoon na Sawru Fall mooy rek ki nga xam ne mooy bébé moo fa teewoon Franc Mor bu parcelle mbooloo moo fa teewoon teewoon fa assisé asa muy combat boo xam ne bu neex a neex la Franc woote na depuis états la mu comme na mu daan mel rek xam nga Wouly moom phénomène la international li ma koy wax yëngal na fa ba mu yëngutu dal na ci kaw liiru jaan wax na la mu bëgg a wax ak ñoom Ketchup ñëpp bàyyiwut kenn dem dal na ci kaw ñëpp yaa ngi dégg kon daal di ñaanal yàlla jamaïcain la moom jooju yàlla na ci dugg bismillah rahman rahim gën ci alhamdulillahi rabbil alamin Babacar suñu jógee nag si Leewtoo TV nañ dem si Leewtoo point net point net Leewtoo point net ñi nga xam ne que Jax gala bi nga xam ne que na doon tëgg euh, dimanche vingt 27 fee si terrain gaal gi mujj na ko yóbbu fee nga xam ne mooy arène nationale teg fa nag mise u 2 millions donc finalement ñu doon xaar ne gaal gi la euh, teree euh, arène nationale lañ koy la koy mujj amee ngorse Semu aussi day maintenir na galan bu muy bu muy amal Adrien ngor ci même jour bi muy dimanche mise u 500 000 waaw loolu lépp daal luy am luy avant sa lamb la parce que kon lamb ji mën nañ jàpp ne day ubbi dimanche ndax bu lutte simple bi amee rek mooy ça dire que ubbi na kon góor mu nga Adrien Jax nag mu nga fa nga xam ne nii mooy ca arène nationale parce que gaal ga lañ jàppoon far na dem arène nationale yokku misam def ko 2 millions defe naa tamit loolu mooy lu njëkk ñu tëgg arène nationale lutte simple kon ci Jax lay njëkk loolu moo lay wan ne rek nit ki li nga nekk di ko def te ko lu ne mën na ci fekk ndax tamit loolu histoire da koy bind ku njëkk a tëgg làmb arène nationale ci lutte avec frappe dañ naan Lay Njaay la ku fa njëkk tëgg làmb lutte simple tey dañ naan Jax la kon yal na ko réussir dimanche la mu cay xaar mu am ko ci nguur tamit loolu lañ ko ñaanal ñoo ko waa Adrien Senghor daal kon bëri nañu waajal renouvellement licence tamit tey àjjuma mais day continuer ba suba ci samedi ji incha allah Babacar si kàddu yooyu leen tàggoo di leen jox di daje lundi incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay mère so nuyu sama doom Mohamed Diouf di nuyu Dadigé di nuyu ki nga xam ne mooy astandi de DG Brahma euh, depuis Parcelles Assainies chéri Khadija Diallo di nuyu samay doom Mame Diarra Penda bébé Junior yaa ngi si bi ak bébé Rokhaya Babacar. waaw di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaan ñëpp jàmm ci àjjuma ji mais di jaale koo xam tamit suñu grand la Bada Jonn dëkk Réfane di suñu. mbokk di suñu xar di suñu lépp mën naan sax di suñu idol way juróom bu jigéen bi génn àddina ñu koy saraxal ca refanta yal na ko yàlla yërëm te xare ko aljana waaw moom suñu lépp la jon suñu teewuñu fa mais suñu xol ak suñu lépp teew na fa di ko ñaanal yàlla way juróom boobu yàlla yërëm ko moom bépp jullit bu faatu mais di nuyu ñëpp di nuyu nag sama bu dëkk fii zone A ñu koy wax Ami Sidibé ak borom këram Cheikh Sidibé maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax moom dañu yàgg maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu tamit sama benn yaay bu dëkk Grand Dakar ñu koy wax mère Rama Bal maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu ay doomam ah ñoom Binta Sow Ndeye Mati ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp ak si àjjuma ji di ñaanalaat rek suñu kilifa diine yi yal na leen fi yàlla yàggal guddal seen i fan wéral seen ay cër barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais di nuyu tamit sëñ Abdou Karim Mbacke bu baax a baax a baax di ko wax ne sang bi ñu ngi sàkku ñaan seen ab Diop xaas du ma ko fàtte. ba lundi incha